di jiital nag ci sant bi Serigne Modou Mbacke Baara Doli mii nga xamante ne tey moo fi sëtu Serigne Touba di ci teg soxna Anta Sarr mu sëñ Basirou Sarr ginnaaw bi ma santee samay nit ñooñu laa ci teg teg ci ñi ànd ci résistance ñëpp di sant tamit ñi nga xamante ne ni ay responsable lañ ñëw teewe si sama bis bi sama seddale soble bi soble bi nag muy soble muy ceeb màggal muy suukar dama koy joxe waaye nag dama koy joxe ci ni ma ko mane defe naa mosuma koo woote bintu si la mais bu masaan ñëw wàcc ci ëtt bii dama naan euh, Ndey Diouf demal wooyu bintu si la mu ñëw séddale loolu laay wax buñ koy séddale du ma ko fekkee sax maa nga waat garage kon nag tey ji boo gisee ma woote dama am lu ma naqari ci parti bi ma nekk muy APR ndax ñoom buñ ñàkkee xel sax dinañ jàpp ne Astou Ndiaye mii kat dafa am ci parti bi loo xamante ne xanaa dañu koo nëbb te parti bi serviru ma dara diira fukki at ak nangam maa ngi ci topp di daw amaluñ ma benn njariñ bàyyi sama liggéey bi bàyyi sama njaboot gi bàyyi sama borom kër bi di romb nit ñi guddi ak bëccëg di gàddu saak te xamuñu loo koy gàddoo ndax serviru la dara dara gënu koo metti politique nag nekk loo xamante ne drogue la boo ko tàmmee doo ko mën a bàyyi waaye de bu doon lu ñu mën a bàyyi tey man ma man ne bàyyi naa ko suur naa politique ndax nii ma nii ma nekkee dam guddi dem bëccëg bala ngaa ñëw say njaboot tëdd bala ngaa ñëw sa borom kër tëdd te servi luñ la dara kon nag man yéen ñi ma àndal maa ngi leen di xamal ne man damaa récité wu damaa banque sama loxo ci APR bii ma nekk damaa téye sama damaa dakkal samay activité damaa dakkal samay activité ci parti bii ma nekk yéen ñi ma àndal te ngeen di may jàppale di ma voteel ñii damaa dëkkandook ñoom ñi samay dëkkandoo ma am ak ñoom jàmm ak salaam ñu ñuy xëyandoo di gontandoo bokk mbootaay bale bokk mbootaay def ak dindi ñii ci des man jëggaaniwu ma mbooloo ñii ci des samay mbokk lañu kenn ku ci ne sang mbootaay laa la la la laa dem ànd ak ñoom bu ma jógee di ngeen jóg guddi bu ma jógee bëccëg di ngeen jóg damaa mujj am kersa ci yéen woote ku ne xam ne ne gëj naa koo def soble si rek moo tax ma woote waaye man yëkkateetuma kenn ci ay caaxaan te APR gi li ma gis caaxaan la APR gi ni muy doxee ci Touba caaxaan la kon man dootuma yëkkati kenn ci ay caaxaan li ma bëgg nag mooy ngeen téye seen carte électeur yi wate loolu ma leen kenn bis buñ duggee ci campagne bi kenn ku ne dinaa taxaw ci sa kër kenn ku ne dinaa taxaw ci sa mbootaay wax la man position bu may taxawe waaye fi mel ni damaa bank sama loxo ci fan ci APR. bravo résistance. résistance laa wax. résistance résistance nañu bàyyi diw mënut dara. man ku taxaw fii ku ne xam nga ne man am na lu ma man ndax yàlla may na ma nit ñi nag. yàlla lim ma may moom nit ñi bokku ci. may na ma samay bokk may na ma samay dëkkandoo may na ma sama dëkkandoo yi may xëyandool di gont ak ñoom. man nag bu ma mënta ànd di ko jariñ parti bu ma mën a nekk te jariñu ma ca damay taxaw ne man lii gisuma ci nu ma xam ndax nit njariñ lañ koy doye kàddu yi ma fi wax mooy bañ ñu bloqué tamit gis ngeen nañu taxawe ñun moom ay gaynde lañu ñun waa résistance ay gaynde lañ résistance ay responsable rek a ci ne sëñ Modou mi toog responsable la ñëpp xam nañ ko fi mu jaar ak Macky Sall ak li mu defal Macky Sall kon fayu ko xoromam man mii ñii ma taxawal ak ñii ma dajale fii xam nañ li ma daj ci parti bi xale yi ànd naa ak ñoom fanaan àll yendu àll kër Samba fu nekk teg nañ fa sunuy tànk di campagne fu mbokk ne dem nañ fa pour jàppale président Macky Sall. kon yaakaar nga ne lii. Touba gi dañ koo dajal. kon yaakaar nga lii nga gis dalul xel ngir Macky Sall gañ dalul dalul xel soxna Anta Sarr mii responsable la ca Lam Sarr bu man dara ay keesam. ma nga ca ay nangam nangami million kenn defalu ko ko moo ko defal boppam APR amaluñ ko benn njariñ maam Jaara Faal mi ku ne dégg na ko ba makki Sall tampé parti bi ba heure bii 2009 ba tey mi ngi ci parti bi servir ko dara ñuy jël ay transiment di leen favor di leen di leen di leen dooleel bàyyi ñu ñun ñi nga xamante ne ni ñoo doon guddil parti bi di ko bëccëgal loolu lañ bëgg mu jeex loolu lañ bëgg mu jeex fi résistance lañ wax résistance na ñëpp téye seeni loxo na ñëpp téye seeni loxo. waaye di nuyu ki tax ñu ñëw fii mooy soxna Assou Ndiaye soxna Assou Ndiaye ñu ngi lay nuyu nuyu bu sell ñu ngi lay nuyu nuyu boo xam ne nii nuyu kóllëre la waaye nuyu la boo xam ne nii tamit ñu ànd ci ab liggéey. ngeen xam ne kenn ku ci ne ci yéen ab responsable bu mag ci parti bii waaye it bala may jàll ma nuyu sa mbooloo mii nga xam ne ñu am ngor lan ñu am jom lan ñu am ak gëm lan yàgg ànd ak yow ci ànduñoo ak yow ngir ay jox-jox ànduñoo yow ngir ay defal-defal ndax ñi la war a defal defaluñu la joxuñu la kon tey ji boo leen mën a fii seen ngor képp a tax ñu ànd ak yow. kon soxna yi li ma leen bëgg a wax waaye lebal ngeen ko ku ko mat a lebal lebal ngeen ko ku am ngor lebal ngeen ko ku am lu muy bëgg lebal ngeen ko ku amuk bañ li may ñaan kay yal leen ko yàlla jaarale ci moom fay leen ko yéen. amiin ndax li mu jéem lépp ci ñaq boppam képp la ko jëlee di ko def ci yéen kon tey buñ ko féete woon fan ko war a kon yaakaar naa yéen ñëpp da ngeen sant yàlla waaye nag ah ku xamul looy jar nga xam li ngay jar nit ki nag dañoo egg ci tasar gi tasar tàcc foofu lañ egg. tasar tàcc foofu nag buñ fa eggee à part à part aujourd'hui maa ngi déclaré au niveau des résistances mhm. bii nga xam ne ay gor lan àndal di ay nit yu amu bëgg ak mu jam bañ. bis ni ki tey mboolem opposant bi fas yéene na leen a recevoir incha allahu rabbi résistance ndax nag duñ fi toog di xaar rek yàgg na noo alerte yàgg na noo wax léegi nag nañ commencé def suñu plan toog fas yéene recevoir ñi nga xam ne soxla nañ ñu ñu ànd ñoom liggéey. résistance. li ma war a wax nag bari na wax ji bari na lool ci dëkk bi ñun allez que ñu ñu wàññiku ñëw ci ñun di wax ak ñun waaye ñu ngi ci dëkk bi naan résistance résistance Anta Sarr Maam Jaara Assou Ndiaye ku ne ñu lay tudd ci dëkk bi ca fenn fu ne ñu ngi fay daw ci biir parti bi dem di jëlee ay gone yoo xam ne nekkuñu ci parti bi di jël alal di leen ko jox di jël ay oto di leen ko jox ca am ay nit ñoo xam ne yàgg sonn ci ñoom féetewuñu leen fenn kon yéen waa ndaw dëkk bi yéen jigéen dëkk bi yéen ndaw ñi woo naa leen ci résistance. woo naa leen ci résistance. résistance. parce que alal ji ñu jël muy alal Sénégal ak oto yii di ko jox ay gone yoo xam ni ci yeneen i parti la nekk ci gone yooyu nekk ci yeneen i parti wallaay la sim sur le plan du politique war na ne ñëw nan waaye ñëwuñu ndax ñan ànd ak ñoom ñëwuñu ci allégi si biir bépp information bu xam fii danañ ko génnee waññu ko delluwaat fan jigéen wateel ko kon loolu lu mat a bàyyi xel la de. ñi fi ne nag dana danaa wax de danaa wax ci karu jumaa ji danaa wax ci plan jaxaay danaa wax ci bawal construction danaa wax ci ñu doon sànni euh, premier ministre bi ñëwee ci dëkk bi man gor laa bis bu ma bàyyee Macky Sall wallaahi la sim duutuma ci dellu man gor laa laa wax du ma wàccu di ko naanaat man bu ma tax taxawee ne démission naa ci parti bi billaahi du ma ci delluwaat kon nag dama leen di wax ne nit day gore nit di wàcc ba pare di ko naanaat. li ma leen di wax nag wax naa ko ci loolu lay continuer résistance dana continuer liggéey ci dëkk bii résistance dana continuer liggéey ci bépp région ak bépp département 45 département yi nag ci dëkk. résistance kum kon ne duma la topp fa ngeen jëm dafa soriwul. man dem nan ba ba dem ba ci samay rak di leen jëriñ lu ne ci maa ngi ñoom ñu bokk benn baay man ma leen di jàppale ñoom ñu ma jàkkaarloo ak ñoom. tey jii ci tey bu demee bay rusuwaar koo xam ne ku ma bokkal ndey ak baay la ci man ma nekk ak ñoom ci nu ngu ñoo wax ak man am na lu xew. am na lu xew. am na lu xew danaa wax nag waxuguma damay junj rek di dem. balay danaa wax li ma leen di wax nag góor-góor la mën a doon nit. ku ko xamul mu xam boppam. te buñ ci doxee ba dem ñu naan ñii duñ wax wala ñii duñ kii waaye buñ duggee ci terrain bi kenn ku ne dana xam kan mooy góor. Modou Bara Dolly xamul fu ak tiitukaay nekk de. Assou Ndiaye demu ko. amul ak tiitukaay ci ñi ma àndal kenn ku ci am ak tiitukaay yàlla bind ko. dëgg la kenn nag ay Pawla Escobar rek lu ne xam naa ko ci dëkk bi bu ma waxee Pawla Escobar nit ñi dafa ñëw. nit ñi dafa ñu de kon li ma leen di wax nag. Paulo Escobar ak yeneen ak yeneen danaa wax maa ngi leen di nuyu di leen sant wa salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ñun nag tey lañ gën a résister wu astu nag dañu ñëw tey pour encourager la fi nga taxaw bu ko wàcc comme ni ko sëñ Modou waxee koo ne du ma la topp ngeen jëm daa sori bu soree da ngay taxaw ñun ay màggati lëndëm lañ ku ñu dajul ñu daj suñu bopp mm-hmm. pare nañ nag pour jàmmaarloog ñoom fii ci digg département bi lu ñu taw ñu ngeer ko ñu ne instant ay wax falut ay wax folliwul ñun ñi nekk ci panel yi di wax ak ñi yor électeurs yi bokkul ñun nag sunu arme politique mooy baasu politique ak électeur te yàlla defal nañu ko ñoo ngi nii taxaw nag ci résistance bi tey lañ gën a résister wu ànd ko ak sëñ Modou Mbacke Bara Dolly ci dëkk bi ñoom bu ñu delluwul ginnaaw du ñu dellu ginnaaw suñu reculé wul du ñu reculé wu laal yoon da yaa ngi nii de résistance soxna Anta Sarr soxna Mame Diarra Fall soxna Assa Ndiaye derrière sëñ Modou Mbacke soxna Ndeye Dieng asu ñu lay wax kontaan nañ na ngeen ko jàpp lu ngeen ko jàppoon ndax asu mii da ngeen may déglu tàcc yi am na solo waaye danoo bëgg ngeen xam seen responsable bii li muy daj moo tax ñu ñëw tey soutenir ko danoo bëgg ngeen gën koo jàpp gën a xam mooy kan ta seen carte électeur yi ngeen téye ko bu leen ko jox kenn bu leen yor seenug basan ku ñëw ngeen lalal ko ko ànd leen ak moom ànd gor ba ngeen àndoon ak moom ndax du lekk dara bàyyi leen te yéen ko tax di sonn yéen ko tax di xëy yéen ko tax di wàcc kon maa ngi leen di bu baax téye leen électeurs yi leen ko jox ku mu bëggut ma leen li may digal sama waa koñ laa laa koy digal man ñama am kama bëgg la ñuy woteel xamuñu Macky Sall xamuñu sëñ Modou xamuñu Assou Ndiaye man lañ xam man lañ bëgg fi ma leen wax rek fa lañ koy dugal ñoom ñi ñëpp noon lañ def ñu ànd ñëpp kon nag na ngeen xam ne ñoo ngi alerte ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal parti APR Benno Bokk Yaakaar ñu ne ay kilifa lañ nekk ci dëkk bi dox suñ diggante ak président Macky Sall bis naka tey à no an non ankay loolu lañ wax yow mën naa am joxuñu ko waaye ñun ñi ñoo dox suñu diggante président Macky Sall à partir de aujourd'hui duñ leen may dara li ngeen di wëri nag mi ci biir kër gi ñi ngeen di transmettre di leen indi ci ñun ñuy cëpp-cëpp ci sunu kaw buñ demee ba ca làmb ja ba ñëw dinañ xam kenn ku nekk la mën bisimilah.